ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa qadimihi wa wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, dañoo daje woon tey jii fii ci kër Cheikhul Khadim gii ci jumaa ji ndaje mi nag dajale woon waa daairatu muxadamatul xidma ñu teewoon fii ci teewaayu sëriñ Abdoul bu Bousso moom sëriñ Abdoul Moutalib di secrétaire général bi ak bu Ahad Bousso moom sëriñ Muxtaar Abdoul Ahad Bousso moom sëriñ Thierno ñu woowoon fi nag sunu mbokk yi di sunu kilifa yi ngir waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci wàllu forage su Baxeema bi ñi nga xam ne nag ñoo fi teew ak ñiñ fi teewal mooy waa Touba xëpp nga xam ne ñoo ñoom ñoo àndoon liggéey bi andoon projet bi. sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma teewal leen fi sëriñ Abdoul Khadir Mbacke moom sëriñ Mbaye Mbacke jaaxal sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Moussa moom sëriñ Basirou ak professeur sëriñ Faye euh, waa Touba Toulouse nga xam ne ñoom la sëriñ bi tegoon ndigal li ci seen loxo itam ñoom itam sëriñ ma ngay ma ngay ñang teewal leen fi ak sëriñ Matar Diagne ñu dalaloon nag Touba ci kanam ngir waxtaan ak ñoom. ci lu jëm ci liggéey bi Touba ci kanam itam Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil nekk ci bopp ba waroon a teew waaye yàlla dogal mu am ngànt waaye Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Abibou mi topp ci moom mi ngi nii teew ci sunu wet teewal ko fi ànd ak Serigne Abdoul mi nga xam ne mooy président Touba ci kanam ak Serigne Khadim Diouf mi nga xam ne moo yore administration bi ànd itam ak sëriñ Serigne Mafari Ndiaye ak sëriñ Euh, Sariw Jaxate ñu teew fi ànd ak sëriñ Fallou Fall Mbawor euh, jataay bi nag bi mu egsee leeral nañu li nga xam ne moo waral jataay bi te mooy forage su Bakhien bi historique bi yëpp xamal nañ leen ko leeral leen ko fi mu tàmbalee namuñ ko waajale woon mu waroon a nekk mini forage ak la tax ñu mu jóge ci mini forage dem ci forage te mooy boroom xam-xam yi nga xam ne dugg nañ ci te wane ne nab bi nga xam ne ci dañ waroon a capté nab boobu baaxul dañ te suñ ci xëccee ndox mi itam ndox mi du doy en même temps itam du nekk ndox mu baax boo xam ne muñ war a jëfandikoo lañ bi ñu waxee loolu ñi nga xam ne ñoo porté woon liggéey bi te yàlla dogal na dajale woon nañ seen xaalis ba mu manoon la nga xam ne moom lañ soxla woon itam dañoo daal di taxaw dellu ginnaaw taxaw daal ne kon nag nañ seet la gën ñu def ko ndax suñ tubaab ku koy defal da nga koy defal la gën ci loolu nag la borom xam-xam yi defaat étude ba génne nab boo xam ne day dem cent quatre-vingt-dix ci suuf mu nekk nab boo xam ne am nañ ci yaakaar lool muy napp bu baax boo xam ne ndox mi miy jóge ci kaw am na lu dox digganteem am na laltaay ji suñu borom def ci seen digganteem ak ndox moom ba du fa àgg ba di ko infecté ndox ma itam nekk na ndox moo xam ne qualité bu baax la bu ñu am yaakaar la tey it moo gën a bari dana doy ndox mooma nag cere la ñu mujj capté ko mu nekk cent quatre-vingt-dix mètres loolu nag bu amee mbir mi mépp day daal di soppi ko lu nekkoon lu tolloon ci fukki million wala lu yées fukki million dem ba àgg ci juróom-benn fukki million wala lu ëpp juróom-benn bu boobaa ko soppi day daal di am ñu daal di euh, soppi ko kay nag ma nga tàmbalee ca këyit yi nga xam ne ñoo ko war a ñoo war a maye ñu def forage bi mooy autorisation bi ak études yi nga xam ne moo war a jiitu yooyu itam borom xam-xam yi def nañ études yi ci na mu gën a gaawee defin wu gaaw woo ànd ak Pastef ànd ak yéene ba document yëpp génn ñu boole ko ak demande d' autorisation bi yóbbu ko topp ko itam ba am autorisation gas forage bi ci la ñu tàmbali nag forage bi biñ koy tàmbali itam ni mu li ab taalibe bu am bu Pastef bu tàmbalee liggéey rek nan lañ ko tàmbalee mooy njëkkwuñ di xaar am financement bu koy ko tàmbalee wala leneen waaye dañoo daal di song rek yaakaar Sëñ Tuubaa mu sa gas bi nag tolloon na ci fanweeri million yu manqué tuuti yoon mu njëkk bi da ngay joxe 40 pour cent mu nekk 11 millions yi nangam ñaari yoon yi ci des bu ci nekk dangay ngay joxe 30 pour cent léegi gas nañ gas bu bi ñu daataa tàmbali joxe nañ 40 pour cent yi mu nekk daanaka 12 million ñaareelu état bi ci lañ toll nii di war koo joxe mu toll ci 8 millions. am na beneen étape bu war a ñëwaat boo xam ne bu ñu defee réception ba noppi itam moom la ñu war a defaat mu nekk 8 million boobu nag ñu ngi ci soññi suñu bokki taal bi yëpp ndax bu ñu dégg ñu ne noppi nañ rek dañoo war a jox ñeneen ñu war a euh, def équipement yi wala nangam ñu ne kon war a def noppi na. desel nañ ki ñu war a li ki ñuy liggéeyal nii desel nañ ko lu tollu ci huit millions yoo xam ne moom lañ ko war a jox yoo xam ne ba tey itam te nañ tàmbalee woon dong lañ ko la la toll mooy ñu ngi ciy yaakaar Serigne Touba ak taalibe Serigne Touba yi ngir ñu war koo fay su loolu jàllee nag dañoo waxoon ne suñu egsee foofu ba ndox bi génn tege ne war ñu war ko nañuy def nag ba mën koo jariñoo su boobaa nag ñu door a dem ci Touba ci kanam waxtaan ci ak ñoom neneen ñun kat lii dox nañ ci fii la waroon a yem nee nañ leen jàllale leen ko moom egg fee foofu ba mu fa waree yem équipement yeeg ya ko waroon def yëpp ca loola waroon a bokk waaye nag yokkuloon nañ leen ko mu egg fii double lu mat juróom-benn yoon wala juróom-ñaari yoon jamono neexul ñoom ñëpp xëy na atténué wuñ ko noona ndax benn daay rek la du du fédération ba mu ñëpp ñoo ko ànd wala nangam nangam xëy na jàppale nañ leen ci waaye ñaan rek lañ ci ab gox. bi ñu defee ñoo it ñun it nañ leen ci nag Touba Xëpp gunge nañ leen ci ci seen xam études yooyu suñ ko fayoon xaalis bu bari lay doon waaye gunge nañ leen ci seen alal ndax génn nañ ndax xam nañ ne ñoo leen yokkaloo mbir mi tax na def nañ ci apport bu am solo ci wàllu financement. Euh, bokki jullit yi bokki taalibe bi yaakaar suñ tubaay itam nga xam ne ànd nañoo ñoom dem ci ñoom sàkku fa ñu jàppale ñu ci itam jàppale nañ ñu ci ba ñu egsi fii ñu toll Moukhaddamatoul Khidma itam jàpp nañ ci lam man ñun ñëpp ñu dox ba egsi fii ñu egsi ba nga xam ne xëy na benn étape boobu moo nu desee ci lu ñu war def ñu di ci woowaat ñëpp bàyyi ñu kenn bañ a jàpp ne dañoo egsi foo xam ne noppi nañ ci noppeeguñ ci dese nañ ci daanaka fukki millions yoo xam ne war waraat nañu ci waaye su loolu jàllee nag lu toll ne lañ lañ bañ tàmbalee ak léegi da ciy waraat muy liggéey bu rëy mooy fexe ba nag ndox moomu mën a génn ñu mën koo jariñoo ci barab bi nga xam ne fi lañ ko soxlaa foofu nag moo tax moo indi woon daje mi tey ñu daje ci ak Touba ci kanam loolu it luñ xalaatoon la ca bañ koy bañ koy tàmbali moo tax sax woowu ñu leen woon ci njëlbeen ga ne leen def leen defal leen ñu lépp bu ñu leen ko waxoon itam ñu def ko nag sëñ bi waxoon na ma ko ne na ma su ngeen su ngeen soxlaa su ñu def lépp waaye nag ndimbal daf caa war a fekk loxol borom nañ ca nekk ba àgg fenn fi door tey na wax nag ne leen léegi fii leen ñu bëgg ñu def ñu def ci lii rek mooy mooy mooy moo moo indi ñu toog ba nekk ni ñu door cee waxtaanaat waaye sëñ bi moom ca tàmbali ba ne woon na nu ngeen ko bëggee wax leen rek li ngeen bëgg ñu defal leen ko waaye nag ginnaaw sëñ bi joxe woon na ne nañ nañ def bu ñu egg rek daal di daal di nangoo daal di tële nañ dox ba fañ mën a yem tey jii nag accès nañ foo xam ne nii mooy fañ waxoon ne buñ fa accès danañ ci euh, woo Touba ca kanam ngir ñu ñëw jàppale ñu ci te mooy fexe ba ndox mi génn dem ci li ko taxoon a jóg ñu mën koo jariñoo leneen lu ca dolliku nag ci lu war a mën a jëriñ bi euh, bokki taalibe yi nga xam ne ñoo fa dëkk bu waaye nag ñu sof ko ca day su ko bañ loolu rek ndax xam nañ ne ndox may génn dana ëpp barab ba waaye ëppul nag ñu ëpp ñu wër barab ba su boobaa barab ba ak ñi wër barab ba ñëpp dañ ciy mën a jariñu loolu nag moo indi woon ndaje mi tey biñ fi dajee itam sottante nañ ci ay xalaat waxtaan nañ ci ba tënk li ñu war a li ñu tënk li tënk nag mooy ñun lii la ñuy sàkku ci Touba ci kanam ñaar beneen càkkuteef bi ci desit te nga xam ne Serigne Ousmane moom la Euh, doon sàkku itam mooy lu lënkale diggante Touba xepp ak Touba ca kanam ndax ñaari mbooloo lañ yoo xam ne liggéeyal Sëñ Touba rek moo leen tax a jóg te ñaar nag bu ñu àndee ne dañoo bëgg dara te mënuñoo ànd xëy na kon am na ci koo xam ne la mu wax nekkul ci moom. mu gis na ñaar ñooñu bu àndee la dana dana doon njariñ lu rëy rëy rëy ci yoon wi ndax ñii li am ci xam-xam buñ ko joxee ñi nga xam te ñoom it ñu soxla xam-xam bi lool di ko wuti fu ne di ci sonn di ci ñàkk lu ne ñii dina ma am xam-xam bu mel noonu mën koo joxe ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa itam day am njariñ lool ci yoon wi lool mooy itam sëriñ bi sàkku na ko ci diggante ñaari mbooloo yi loolu nag la cay eh, bàyyi la cay tukkee ci ñaar yooyu ñaari càkkuteef yooyu dañuy bàyyi sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Abibu mu mu mu mu leeral leen ko incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu leen siyaar di rafetlu jataay bi nga xam ne seqoon nañ ko ak waa Muxaddamatul Xidma ak waa xipp ndox mu neex ak bokk yi fi teew xam naa duñ ci jiitalee ak sëñ Ousmane mi nga xam ne Mm, ab taxawaayam ak itteem ak pas-pasam mu xam na ko te kuréel googu itam sëñ bi boole woon ko ñoom mu leen taxaw ak sëñ Moustapha am sëñ Moussa sëñ Abdou Khadir moom sëñ Mbaye Mbacke jaaxal waaye di nuyu itam professeur Serigne Faye mi nga xam ne moom it yëkkati na ay kàddu yu am solo ci leeral xam-xam bu am solo buñ ittewoo lool waaye du nuyu waa ma Moukhaddamatoul ma gi nga xam ne ñoo woote woon jataay bi sëñ Abdoul Ahad Bousso Mokhtar mi doon wax sëñ Abdoul Ahad Bousso sëñ Abdoul Moutalib sëñ Abdoul Ahad Bousso sëñ Thierno ñu jot leen lu ko mboolem kilifa yi Moukhaddamatoul Khidma yëpp di wax ci turu Serigne Habibou mi nga xam ne mooy kilifa Touba ci kanam te amoon it amoon yéene teewe si jataay bi waaye mu am ngànt waxoon nañu teewal ko fi nu ànd ak bokk yi nu àndal ñëw fi sëñ Seydou Diakhaté mu sëñ As Diakhaté président Abdoul Fattah yi mu Fary Ndiaye vice président Khadim Diouf di administrateur bu Touba ci kanam ñu teewal fi waa Touba kanam gépp nag di rafetlu nag ndaje mi ak waxtaan yi fi kàddu yi fi yëkkati yëpp daal am na solo waaye li si yëpp laal wax rek li am solo ci ànd bi moom mooy li ma leen waxoon rek mooy ñaari mbooloo yu menn lañ ndax ñun ñëpp moom suñ ittee suñ pas-pas mooy liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo tax a jug ci dëkk bi Moukhaddamatoul Khidma ci loolu la nekk Tuubaa ci kanam it ci loolu la judd ci lay dox ba ak si fii forage bi ngeen doon def bàq it defalu leen ko kenn yoon yëpp ngeen ko defal julli ñëpp ngeen ko defal taalibe bi sëñ Tuubaa yëpp ngeen ko defal dëkk bépp ngeen ko defal ndax foofu moom ñëpp fa am soxla baqiya moom ñëpp fay soxla kon lu ngeen fa def ñëpp ngeen ko doyal waa d'ailleurs Toulouse bi nga xam ne itam ñoo ci ànd ak ñun ci jëw yi ñi fi teew leen di ñoom di leen sant seen taxawaay seen pësteef biñ ci jàppe woon ba agsi ci fii mu mel ne nag kon ni nga ko waxee fii ngeen tollu mooy dem ngeen ba Fawas bën na bëgg ngeen Touba Ca Kanam taxaw ci ci équipement bi loolu itam Touba Ca Kanam incha allahu taala fas na ko yéenee def jekk na ci def ko ànd ko yéen ci ni ngeen ko bëggee kon loolu moom na ngeen xam ne lu Touba Ca Kanam fasoo la lum jàpp la te jàpp na lim ciy def boppam rek la koy defal ndax sëñ bi la koy defal ndax li fi nekk ci Touba Kanam alali sëñ Touba fi ñu ko jëmee yëfi sëñ Touba la kon loolu moom Touba Kanam jekk na ci def ko incha allahu taala li ñu ci li leen ci waxoon rek li ñu ciy néegandi ko mooy ngeen bind ko wan lii ngeen soxla rek andil nu ko waaye incha allahu taala la ci wax noonu la ko suñuy waxee woon njëlbeen nga ne leen bu ngeen bàyyee woon lépp ñu def ko it loolu mooy li ndax luñ ci def rek Tuubaa Tuubaa lañ ko defal sëñ bi lañ ko defal te noo bokk liggéey bi li nga wax ci diggante waa xëpp a waa Tuubaa ci kanam it loolu itam ñu ngi bég sant sëñ Ousmane baax a baax ci eh, leeral yi mu ci indi ak jokkale gi mu nu jokkale ban mën a ànd liggéey sëñ bi ndax ñoom xam-xam biñ yor luñ soxla la ndax Tuubaa ci kanam sëñ Muntaxa daf noo jox ndigal ci ndox mi ci ñu ànd ko ak ñu ko yor jàppale leen ci boole ci itam di di ko ci xalaatal ak di ko ci jàppale ci wet yu bari loolu nag tax na kon ñi ci am xam-xam doon ci dox kuñ ci mën a am rek danañ la soxla woo bu baax ngi àdd ci ak yow kon tam jataay bi loolu képp buñ yemoon ci jataay bi diggante Xipp ak Touba Kanam képp doyoon na ngir ñu bokk ab jataay waxtaan rawatina nag li ci dolli ko waat kon sant nañ ci bu baax di ñaan yàlla ci bàkki sëñ Tuubaa yéene jiñ ci am yàlla nañu ko suñu borom mottalil ci bàkki sëñ Tuubaa te luñ ci yëngu rek ñu daje ci ngërëmu sëñ bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum Euh, man la professeur Serigne Faye Touba xepp ndox mu neex organisation boobu maa ngi wax ci ndigalu sëñ Ousmane Mbacké ak sëñ Moustapha Moussa ak euh, sëñ Djili Mbacké euh, ñi ma jiitu nag wax nañu lépp ci relation bi nga xam ne bii moo war a am ci Touba xepp ak yenn organisation yi Touba xepp nag benn réseau d'experts la ñoo xam ne ñu ngi ci organisation yépp ci nguur gi ci privé yi ci université yi ci banque internationale yi ñëw rekk pour jàppale euh, Touba ci action citoyenne ci boppam loolu moo moom moo doon suñu objectif euh, ba nga xam ne bi commencé nañu depuis deux ans di réfléchir naka la ñuy mën a saafara leen ndoxu Touba ci bopp action boobu nag bi ci njëkkoon tomb li mooy le transfert ndox mi di lac de Guiers ba Touba pare nañu note conceptuelle bi ci boppam pour mën na ko jégal xalif bi xalif bi nga xam ne bi moom moo ñu ko santoon pour mën a xool naka la état bi la mën a suuboo ci projet boobu waaye ginnaaw loolu dafa fekk benn projet bu ñu dab euh, projet bi nag moomuñu ko ñun dañu doon àndal ak ñoom rek muy projet euh, forage Baqiya euh, vraiment Touba Xepp def na ci lu mu mën ba mën a changer conception forage te nag booy seet nag loolu moom mooy suñu rôle ñun euh, Touba Xepp ndox mu neex parce que jaayante rek la ñu nekkee muy ci miir ndox mi mbiru assainissement mbiru inondation ak leneen loo xam ne li mën na am ci Touba ci boppam nga xam ne bii c'est un service d'expert service d'expertise la boo xam ne bii ñun dañ koy def pour jaayante ko su suñ su sëñ Touba bu nga xam ne bii problème bu fi mën a am euh, euh, ñun daañ ci mën a apporter solution bi et nag looloo taxoon ñu vraiment ñu sàkk woon suñu jete euh, ak Touba ci kanam parce que gis nañu action yu bari yu ñuy réaliser te action yi ñuy réaliser Euh, vraiment ñun xam nañ ni am nañ ci wàll ci wàllu xel euh, nga xam ne bii ñoom bu ñuy dem ci action peut-être que ñun mën nañ leen féeti ci kanam euh, xelal leen ci ban yoon lu ñu mën a jaar ba nga xam ni bii seen action daañu mën a dinañu dina mën a taxaw parce que ci wàllu ndox dafa nekk loo xam ne lu xaw lu xaw fiir la boo ci xamul lu bari donc doo mën a dem mën nga ci def xaalis bu bari te du mën a sotti ñu daal loolu la ñuy taxawu te vraiment réponse bi ñu am nii tey jii ci ci sëñ Abdoulaye dafa dal suñu xel parce que euh, ñun engagement citoyen engagement murit rek la ñuy wone te euh, vraiment man ñi ma représenté euh, loolu la ñuy doxee ci ci su bés bu nekk de telle sorte que ñoom dañuy xaar rek benn ndigal pour mën a liggéey ci loolu donc loolu moo doon jetaay bi jetaay bi tey ñu koy rafetlu trop di xaar nag euh, am na ci ñun ay séance yu ñuy def chaque jour ay réunion en ligne bu ñu mënul déplacer wu vraiment xool naka la ñuy mën a toogee Touba ci kanam pour mettre en œuvre vraiment partenariat bi parce que dañoo war a liggéey parce que yéen ci liñ leen sant diis na diis boo xam ne bi war na am kenn koo xam ne bi war na taxaw ci ci ci ci kanam vraiment di won yoon bi nga parce que yéen réalisation ngeen di def wala ngeen santaane ñu réaliser waaye balaa ngay réaliser toujours dafay am conception boo xam ne bi dafay nekk ci kanam donc ñun daal pare nañu pour euh, nekk ci ci ànd ak lëkkaloo ki yéen vraiment pour action boo leen mën ñun boo ci interpeller rek vraiment mën nañ ci mën nañ ci réfléchir boo jox leen ci ay orientation nga xam ne bi euh, réalisation bi dina nekk loo xam ne lu conforme euh, par rapport ak seeni projet question bi nga wax question bu am importance la parce que boo ko nattee nii normalement 33 forages yi nga xam ni ñooy alimenter Touba normalement waroon na doy Touba mais premier euh, mais le problème ci bi am Touba mooy ndox mi dafa neexul parce que ndox moo xam ne bii ndox mu yàgg la ci suuf mooy nab bi nga xam ne bii moo nekk ci suuf moom moo alimenté Fatick moo alimenté Kaolack moo alimenté Diourbel euh, Mbacke ba ba ba fii Touba moom la ñuy wax nappe maïs bi nappe boobu nag dafa xaw a xorome am tuuti fluor ci boppam euh, solution yi am euh, état bi am na solution yu bari tiire ndox mi ci trente kilomètres wala ba cinquante kilomètres jëlee ko Sadio wala ko jëlee ko Xatali wala même jëlee ko ci lac de bi pour andi ndox mu neex waaye fii loo fi mën a def ci indi ndox tant que réseau bi réseau d'adduction bi mooy canalisation yi andi ndox. tant que defuñu ko xooluñu ko càmbaruñ ko vraiment euh, pour am fi solution boo xam ne bii durable dina te loolu nag ci boppam moo indi sax gàllankoor yi ñu am nii yëpp muy inondation yi ni di nga gis ci wàllu euh, lépp lu jëm ci pourtour Touba bi ndox mi wal na jóge ci canal yi dem ci suuf si ba fëlaat ci suuf fëlaat ci kaw mooy inondation de nappe yi ñuy wax nii Touba te boo xoolee Euh, daanaka daa rey euh, garab yi fi nekk yëpp parce que ndox mi dafa ndoxu xorom la garab yi àttanu ko ci boppam donc da ngay gis ne daa mel ni problème bi daa ñëw euh, daa am problème problème yokkaat voilà pour réseau bi moo am problème ba ñëw andiwaat fi beneen jàngoro muy inondation yi ci boppam donc loolu daal ci boppam dafa nekk loo xam ne dañ ko war a jëkke mooy diagnostic réseau bi xool réseau bi yëpp fan la tëddee ci suuf ban façon tuyau moo ci nekk ban dimension moo ci nekk ba nga xam ne bii la ci yàqu li ci bon ñu dindi ko defaraat ko ah donc li ci baax ñu bàyyi ko fa de telle sorte que booy am euh, di nga mën a am réseau bu baax parce que réseau bu baax même ñi joxe ndox dañ koy dañ koy natt dañ naan bu ma amee quatre vingt cinq pour cent de performance mooy fit bi bu nekkee ci quinze pour cent donc man réseau bi efficient mais boo xoolee di Touba ñun ñaa ngi naan quarante pour cent ñun ñaa ngi naan pour cent donc daa ne ni la ñuy euh, andi ci ndox yëpp ci forage yëpp dafay duggaat ci suuf te li ci suuf attanu ko donc loolu moo tax muy bal di jëm ci kaw donc daal loolu daal mooy vraiment jàngoro bi ñu war a njëkk fat fii nii balaa ñuy jëm ci beneen action. lii di mbokk taalibe yi nuyoo bi ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha di siyaare sëñ Afia suñu njiit. mbokk taalibe yi fi teew yëpp ci baatu sëriñ Mamenda Njaay ak mbooloo mi mu àndal ñëpp ñuy bokk leerlu ci luy wér ak di jot li yéenent bi ngeen yénnee gën a yaatal liggéey bi ndax liggéey bi Sëriñ Tuubaa leen kenn mënut yamale yemale ba tax na yaatal bi ñun ñi sawar nañ ci lool mbokk taalibe yi jot nañ ci waa Tuubaa kanam ndax loolu dafa bokkoon ci lu ñu doon feddali ndax dañoo woo jullit yépp rawante nag mbokki taalibe yi ndax liggéey bi maanaam bu doon juróom la ñoo ngi ci nattub ñaareel bi mu war a des ñetti natt yu nga xamante ne yu ci jëm la te loola dañuy nësën rekk ndax Tuubaa kenn mënu koo yamale li sëñ bi daan wax naan mag mu jëmm sol daalam dox toogagul kenn xamul fu mu yem kon lees fi sasoo lu ci nekk dañuy gën a takku rek jëm ca kaw bañ a gees suñu gannaaw xool ca kanam rekk moo tax yónnent bi ngeen yónnee yéen waa Tulus tuubaa Tulus mbokk yi jot nañ ci te dégg nañ leen ndax lii du lu jëkk ci ñoom du lu bees ci ñoom xam nañ ni Touba gii Sëñ Touba dong ko yore luñ ci def dañuy def yéene rek. kon woote boobu ngeen woote jullit yëpp rawante naag tuubaa ca kanam ak Moukhaddamatoul Khidma ak mbokki jullit yi fi nekk yëpp rawante naag taalibe yi di soññee lu jëm ci liggéey bi loolu fekk na leen ci ba ñu ngi ci kanam waaye nag soññe bi ñoom dañ koy delloo si ñëpp rek xam ni liggéey bi moom liggéey bi Sëriñ Touba la. daanaka bu fekkee ne lay si de natt la dana doon juróomi natt te ci ñaareel bi lañu toll kon doole takku rekk xam ne liggéey Sëñ Tuubaa du jeex bu ba keroog ñuy faatu te xam ne yoruñu ci dara Sëñ Tuubaa lépp loolu daal mooy soññee bi li ngeen jottalee ci nit na ci ñëpp jàpp ba ndox mi tuuru ba ñu mën ko jëfandikoo nañ ko bëggee loolu jot nañ ko jottali nañu leen ko waaye na ñëpp jàpp rek comme ni ngeen ko waxee yéen ñooñu na ko ñëpp xamee ne daal ñun ñëpp la war te ñoo bokk bëgg-bëgg bokkub liggéey man nag dañ maa wax loolu rek ma wax waaye ma néew maa wax lu ci dëng rek ci man mii la ñii ma yónni de ñu am yónni ñu am pastaf la. te ñoo xam li ñuy def lañu ndax kenn ku ci nekk jàng na ba alhamdulilah rabbil alamin sëñ Tuubaa leeral na koy xam-xamam waaye ñoo wëlbatu ko takk seen digg fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa man mii kay maa dul lenn lu ci dëng rek ci man mii la maa ngi leen di jéggulu lu ci dëng waaye tey ñaan sëñ Tuubaa Mbàkke liggéey bi nga xam ne moom la sa sa du juum di jaawale ku mu jox liggéey jox la gànnaay lan sëñ Tuubaa dollee gànnaayal ba li mu bëgg lépp ñu jëf ko lu kawe njortam ba mën ci am ngërëmam tey ak ëllëg te bokk ak jullit yëpp nag salla la Muhammad ngeen jégal ma bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf